Eh, gépp xéewal te loolu ñëpp ko ajowoo loolu nag sëriñ bi dafa wax ne ñaari sàll yi nga xam ne ni mooy sàlli sëriñ Tuubaa mooy alquran ak xasida ñu def tawassul ci sëriñ Tuubaa eh, bu ko defee ñaan liñ bëgg lépp suñ borom tabaaraka wa dana ñu jañal liñ ragal danañu ñoddil tamit liñ bëgg te mooy njàngum alquran moo xam ne ni sëriñ bi santaane ko bu subaa ñëpp maase ci def ko boole kook njàngum xasida boole kook sàkk sarax itam boole kook tamit teral ñiy jàng alxuraan ak ci ay bernde alxuraan nag Sëriñ Tuubaa dafa wax ne ci lañ yaakaare am yërmande suñu borom tabaraka wa taala àdduna ak alaaxira waaye ci lañ yaakaar tamit suñu borom musal nu ci eh, bépp musiba ak gépp njàq rek àdduna ak alaaxira kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi rajawna naa al mawla bihi xayra matlabin wa fusna bihi fi kulli dafain wa fi jalbi kon loolu lépp ci alxuraan lañ ko yaakaar ngën ji càkkuteef ak lépp loo xam ne ni jañ la ak ñoddi ci alxuraan lañ ko yaakaar alxuraan nag moom ku na xam ne ne sëriñ bi mooy léppam wax na ci lu baree bare kënsil kitaabu wal adab laa jamhu fiddatin wala jamhu zahab qiraatuha kënsi wa jaahi wa izzati uniltu biha kaw nii larallahi saa sadaqi kon moom lépp lu mu am rek ci alxuraan la ko am nee na it alxuraan kat eh, yaay sama àndandoo bi nga xam ne ni yaa mi gunge ba àjjana raafaqatani mushayian lil janna daarul xaraari wal muna wal minna nee na alxuraan yaa ma woomalal yaa tax ma riche yaa ma musal yaa ma teral yaa ma sàmm yaa ma may li ma bëgg lépp yaa ma bégal yi tamit axnaytani azamtani karramtani xafidtani mallaktani bashartani nee na ci alquran la ma sun borom tabaraka wa taala yëkkatee ba àjjana rafaani ilal jinaani allahu bika wala ilaha illa allahu nee na alquran it ma yëkkati goo xam ne nii dootuma suufi mukk te képp koo xam ne nii day yëkkati gi ma alxuraan yëkkati ak jiitu gi ma jiitu naqari na la sun borom dana la wàcce te dootoo jëm kaw rafaanil quraanu rafan xafada man saahu taqaddumi fan xafada alxuraan mooy léppam kon euh, xasida yi nag dafa rëy rëyaay goo xam ne nii nee na moom ci lay jañ ci lay jañ di ci di ñoddi ci lay jañ di ci di ci ñoddi dafay wajal bi xidmatul haadil amin man ko waxee xasida yi tamit nee na dañuy jaamu suñu borom tabaraka wa taala waaye dañuy liggéeyal yonante bi jëmi xasida yi ci boppam kon day mel ni xasida yi melow sëriñ Tuubaa lañ ba li sëñ bi def xasida yi tamit dañ koy def xasaid yi taabudu rabbi shakur wa di taxdimu abdahu shakur dañuy jaamu yàlla di liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ah ku ne xam na jamono jii tamit saytaane bari na doole lool kon nag la nga xam ne nii kat mooy tax saytaane nekk ci ay jafe di jooyaka ak lu na di ko dal ci musiba loolu jar naa fonk te loolu mooy xasida yi te nee na xasida yi kat day bégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag moo gën a metti ci iblis ay kanu kitaabati tubashirul mushafaa wa inda iblis na samay mbind day day day samay jinaas samay mbind day bégloo yonent bi saa bu may bég bu may bind yonent bi day muuñ di di ree di bég waaye iblis moom day jooy tabassamal muxtaaru min jinaas yi munsu badaa bihi bukkal xannaas si moo tax sëñ bay jaxati ne ko say mbind daana waral seytaane fecc ku daw yoneen bu tedd ba mu ñus lëf aras jaayo ah, bu dee teral jàngkat yi loolu ku ne xam ne ni jamono yi Sëriñ Tuubaa ña alxuraan ñëpp dañoo xamoon na ñoom Ah, seen ajo faju naa ñu ko mënutoon sax dañ koo jànge woon ngir wàccuwaay wa ñu am ci moom ak taraanga ji ñu jëlee ci moom wax nañ ne sëriñ Njaase Siise way juru sëriñ Mor Mbay Siise ba mu jébbaloo ci Touba sëriñ bi da koo laaj noo def ak téere bi mu wax nu mu ko mënee sëriñ bi ne ko buñ jullee gee nga ñëw waxal ma ko bañ jullee gee ba noppi sëriñ bi toog ci lu mel ni ak tóoj sa njaase di tari di ko wër di tari di ko wër ba wàcce mu ne ko njaase mën nga alxuraan lool waaye da nga koo moomut te nit lu mu muumut mënu caa jariñu mënu caa jariñe daal ne ko ana noo def téere bi mu ne ko man de moom laay dundee damay def saa bu ma ko bindee dama koy wecce ko ñetti dërëmi ngurdu jënd ci ndimu mu mosol jënd ci ab dund balaa dund baa jeex ma àggal beneen wecci kooti ko noonu laa koy def man alxuraan lay dundee mu ne ko demal bindal ma ci benn ba ko bindee ba indi ko sëriñ bi ne ko fa nga nekk ku la ci gën a jege ca fere ya mu ne ko sëñ ma Masamba job Sam sëriñ bi bind aw kayit jox ko ne ko boo demee nga jox ko ko bu mu ko yettee sëñ Masamba job Sam sëriñ bi bind ci ne ko na nga teral kaamil boobu na nga teral téere bi maanaam ki ko yor sëñ ma Masamba job Sam laaj ko ne ko boo masaan a bind ñaata lañ lay jox mu ne ko dama ko daan wecc ko ci ñetti dërëmi ngurdu sëñ Masamba Diop saam dugg wàññi juróomi téeméeri dërëmi ngurdu jox ko ko. sëriñ Njaay sa jox ko bëgg koo jox kaamil bu mu ne ko mbind mi jógee ca ku tedd ka rek doy na ma ah ba mu ñëwaatee sëriñ bi ne ko am noo def ma Masamba Diop mu ne ko moom day jox na ma juróomi téeméeri dërëmi ngurdu waaye la ci gën a yéem téere bi dama ko koo jox mu ne mbind mbind ma nga bind rek doy na ko sëriñ bi ne ko nag Njaay sa waxoon naa la ne yaa ngi doog a dajeeg boroom moomoo ko loo daan bind di ko wecc koo ñetti dërëmi ngurdu tey nga bind ko ñu jox la juróomi téeméeri dërëmi ngurdu delloo la sab kaamil yaa ngi doog a dajeeg borom ku na xam ne ni itam jamono bi mu nekkee njaareem sëriñ ma banji njaay ak ñi nga xam ne ni ñoo bokkoon ci daari kaamil sëriñ bi da daan jox taraanga yu bari di leen wax ne li fi ñëw seen wàll da cee bokk kon nag kooki eh, joxañ na joxañ boo xam ne ni képp koo jàng alxuraan wala nga jàng xasida warees na laa teral Eh, yàlla mën loo na la jàng ak teral ñay jàng nga boole yëpp ndax aw lu baax du doy waaye képp koo xam ne nii nag jàng jàppandewu la te yàlla wërsëgal la na nga yëkkati ci sa wërsëg teral ñay jàng alxuraan ak xasida génn ci itam loo xam dañ koy saraxi ni ko sëriñ bu waxee ñu dajale ko jox ko ña ko aajowoo ak fu ñu mën a nekk nag ci àdduna te doon ay jullit kon nag ca Touba ci kër sëriñ Touba ak mboolem kër sëriñ Touba yëpp ak ci daayira yi